di wax sa mbirum jëkkër ci kanamu yaa aisha radiallahu anha ginnaaw ba yaa aisha di ko nettali yonent bi yonent bi toog di ko déglu sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ premier jigéen bi lim wax deuxième bi tamit lam wax gisoon nañ ko kon tey ñu ngi jëm ci troisième jigéen bi muy ñetteelu soxna si moom ñu xool moom it lan lay wax ndax day wax ci borom këram mbaax ولا سفان لا يوخ نيتيرو ندو سي دافا زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق ndaw si ne sama borom kër moom ashnaq la ashnaq bu ko arab waxee mooy njool xodd njool mu jéggi dayo koo xam ne daa njool ba ku ko xool ne njool mi waaye la muy njool njool njoolum tóoy la su doxee da nga yëg ci moom tóoy su waxee nga yëg ci moom tóoy te arab bu ne ashnaq mooy ku gudd ba pare bopp bi tuuti maanaam day mel ni mongol bopp bi tuuti day mel ni yuur nangu ci wala bu ci yuur nekkee it du bari te bopp bi ak mbagg yi dañuy sorewoo maanaam li muy xalaat du bari góor la goo xam ni koy xale la yor lim bëgg rekk la xam jamono buy yónni jabaram fekk jabaram nekk ci dara day bëgg jabaram bàyyi la mu nekkoon moo xam ci farata la nekkoon wala nekkul ci farata jamono bu jabaram nekkee ci liggéey mu xool ko xool yi dama bëgg séy yow dana dem ba jabaram bu bëggee jaamu yàlla mu soxla ko maanaam ashnaq mooy njool xodd mu bopp bi sorek mbagg yi nga xam ni xelam guddul ay gan sax bu ñu newoon ci kër gi mu bëgg a wéet ak soxna si ñu fi dëkkul sax bu ñu ñëwoon mu jéem a xool minute bu muy jéema a occasionné ngir jote ak soxnam loolu moom mooy al ashnaq ala kulli hal la mu ca teg mooy in antiq utallaq wa in askut uallaq mu ne man daal sama jëkkër ku doy waar la góor gu jafe la su ma nekkee ak moom prisonnier la ñemewumaa wax soxla ñemewumaa tàggoo ñemewu maa dem sunu kër ñemewu maa dem xew moom daal sama kàddu jóg lay bañ lu ma wax mu xëpp ci kaani in antiq la moom daal su ma waxee rek mu a dama lay may sa baat de yaa fi bàyyi sa boppam ah? bu ma fontoo duma sa morom waaw dangay taw maanaam mel ni benn gendarme ci kanamu jabaram du may jabaram benn occasion du ko may benn opportunité pour mën a toog waxtaan ak moom su jabar ji ne benn mu ne fukk su jabar ji nee asalaam mu coow kon daal moom li mu bëgg mooy góoru mbëtt la lan mooy góoru mbëtt mbëtt ku nekk ci kanamam mu ne yaa ngi for li ma bëgg for ku tolloog moom mu ne la danga maa def moroom ku topp ci ginnaawam mu ne yaa ngi laal sama geen kon góor gu jafe moom la ndaw sii di sëyal te li ciy problème mooy ndaw si dafa bëgg waa ji te li ko waa ji teg ci coono attanu ko mais mbëggeelam puus na ko ba mu toog moo tax mu ne in antiq utallaq man daal naa ne ci kër gi mel ni ab xob su ma waxee rek mu ne ma fase naa la wa in askut uallaq mu ne su ma noppee ñu teg ma ni tege wékk ma wéer ma maanaam daal duma wax su ma noppee ñu lor ma wa in askut uallaq su ma noppee mu aj ma fu ko neex lay dem lu ko neex lay def su ma soxlaa sëyeeg man man sañ ma wax benn soxla man daal benn objet ci kër gi rek moom li bëgg rek mooy am waaye man li ma bëgg sañu ma koo wax kon dafa mel ni jigéen bu nekk ci sën lu ñëw rekk ñu xëpp ci kawam buggul tas te lu mu def ñu ne ko may nañ la baat te mu bëgg téye ay doomam bëgg sauvegarder benn jëkkër ndax xam ngeen ni bari jëkkër baaxul ci jigéen jigéen jooju kon li mu wax mooy jëkkëram ku bon jikko la ku ñaaw jikko la ku sew jikko la ku yées melokaan la jëkkëram daal du ko may benn occasion mu wax du ko déglu benn yoon du ko laaj xalaatam moom daal nekkam ci kër gi daal turu jabar la kon góor gi mënul yor soxna baaxul ci jigéen baaxul ci kër kon maa ngi denk sama mbokk góor yi di leen wax ne intilaqan ñu bàyyi ko ci soxna si war nañ cee jàngatee mbir yi di ñëw waaw ndax jabar jaam la muy benn ndax jabar amul xalaat amul bëgg-bëgg muy ñaar ndax jabar waruñ koo respecté muy ñett su may tontu bu bi ci jiitu mooy jabar dañ koy respecté ndax li mu la mënal kenn mënalu la ko li mu lay defal kenn defalu la ko moo lay wéttali ci sa néeg di la fóotal say yére di la toggal sa lekk di la xaar ci sa kër kon kii war nga koo jox respe du jaam donte nag war naa liggéey dimbale la dimbale boppam waaye boo ko bëggee jàppee jaam rek fitna day daal di am kon góor bi gën ci góor ñi mooy góor gi nangoo muñ ay défaut soxnaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbiru jigéen lu yéeme la jigéen bu nekkee góor gu baax lor ko waaye su nekkee góor gu bon góor gu bon lor ko kon seeni pexe bariwut danoo gaaw a jaaxle yow góor gii di woote woo sunna yow mi ne góoru lislaam nga yow mi ne yonent bi ngay roy wala ka fi rasulillahi uswatun xasana yonent bi da doon jaaxaan ci këram ay soxnaam wër ko muy kaf ak ñoom bay yëkkati tànk di teg ci kaw ñii léeg-léeg yonent bi ree tàpp ki léeg-léeg kee wax kuy wax da lay déglu bi mooy hadis bi yonent bi dafa aye ci yaa Aïcha radiyallahu anha bi mu fa ayee yaa Aïcha di ko nettali la jigéen ñi doon wax yonent bi di ko déglu ba mu jeex takk xoola xadis bii ni mu guddee yaa Aïcha dafa tàmbale ba bët set yonent bi di ko déglu new ko damaa gëmmentu waxu ko dama bëgg a tëdd neewu ko sa wax ji daa bari waaye da koo déglu lan moo tax ndax yërmande bu mu am ci jigéen kon yonent bi nee na maa akramahunna illa karim wala ahanahunna ila laim nee na jigéen kenn du ko teral lu dul nga nekk ku baax kenn du ko toroxal lu dul nga nekk ku torox kon maa ngi dénk sama mbokk yi ñu góorgóorlu ci soxna yi suñuy rakk lañ suñuy soxna lañ suñuy chéri lañ ñoom ñoo ñuy jàppale hada wa salla wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain insha allah ñoom it ñu ngi leen di dénk ñu góorgóorlu